إلهي يا متعالي ارحم حالي يا إلهي يا متكبر ارحم ضعفي
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله يا برم سماء نحمده قوسي ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di ci jiital imaam ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw yépp ci gox bi ak ñi nga xam ne ñoo sabab lu jotaay bi muy xarakatul falaax ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooloo mi wuy si yépp di leen ndokkeel ci weeru màgg bi ñu nekk di shahru ramadan ñaan suñu boroom mu nangul nu li ñu ci jot a woor defal nu tawfiq nu mën koo eggale ca anam ya gën a rafet na mu gën a mate na mu gën a selle li ñu war a bokk fàttalante muy masuliyatul muslim fi islahil mujtama muy responsabilité wala taxawaay wala sas bi nga xam ne ab jullit am na ko ci luy yewenal mbooloo mi luy defar société bi bu ñu waxee al islaax muy yéwénal muy baaxal loolu mooy safaanu ak ñaawal walla ak yàq bu ñu seetee lu mel noonu nag lislaam li muy digle ngir mën a amal loolu muy baaxal mbooloo mi jàpp ndal lépp luy ak baax soññ ca nit ñi waaye fànq lépp loo xam ne safaanu mbaax la wattandiko loo ko nit ñi loolu daanaka ab xaaj la mën nañoo wax ne mooy xaaju diine ji ndax diine ji yépp ñaar rek la mooy assalaax wal islaax mooy baax di jéem a baaxal demee suratul asr suñu boroom tabaraka wa taala ñaar yooyu la fa tudd wal asr inna al insana la fi qusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bis sabr bi mu ne doomu aadama nit ñi ñëpp ñi ngi ci ak perte lu dul ñii mu tudd gannaaw bi muy ñi gëm yàlla di jëf la ngëm yàlla ga laaj ci jëf ju baax loolu ku koy def da ngay daal di nekk ku baax amanu wa amilu saalihaat gëm yàlla di def lu baax ku ko def ku baax ngay doon mu des nag jàllale mbaax googu ci ñeneen mu ne wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bis sabr ñuy déggante dëgg dëgg gi nga xam ne moo bàyyi ko ci suñu borom tabaraka wa taala te mooy wan doomu aadama aw yoon ñu di ko lawal di ko tasaare di ko jokkalante di muñ itam nag la muy jur ci coono la muy jur ci metit ndax ñu mën caa sax tax mu nefata waa saw bi sabr kon ñaar yooyu boo ko seetee moom mooy diine war goo xam ne nag war nañ koo yéwénal société bi muy mbooloo mi war gum war ci jullit ñi suñu borom tabaraka wa taala moo ko waral ndax moo digle ne di leen digle lu baax di tere safaan ba bu ñu seetee ci ndénkaan yi nga xam ne Luqmaan doon na ko dénk doomam dafa njëkk a tàmbalee ci li koy yéwénal moom ci boppam te mooy mu am tawxiid ànd ak di jaamu yàlla mooy amunu wa amilu saalihaat wa is qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaizu yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim wax doom jane ko na nga gëm yàlla te bu ko bokkaale ak dara ndax bokkaale bu fa nekkee rek ngëm dutu fa nekk waaye bu fa nekkul ngëm a fay ne moo tax rek mu tàmbalee ci ne ko bul bokkaale amaa man nga nit ki gëmal waaye mu gëm ba noppi boole koog di bokkaale ndax wa maa yuminu aksaruhum billahi illa wa hum musrikun li ëpp ci nit ñi danañ gëm yàlla waaye dañ koy boole gëm leneen di ko bokkaale moo tax mu tàmbalee ca tere ko bokkaale ga rek su ko defee ngëm ga rek nekk fa laa tushrik billah bul bokkaale yàlla ak dara wala ak kenn kon jëmbat na ci moom pas-pas muy al iman mu wax ko nag ne ko yaa bunayya aqimi salaa yow sama doom deel taxawal julli kon ngëm gi am na jëf ji itam am na ndax julli mooy jaamu yàlla gi taqoo ak jaam bi bis bu ne nangam yoon moom mooy li nga xam ne moo koy defar borom bi ne inna salaata tanha anil fahshai wal munkar ginnaaw bu mu ko digalee ñaar yooyu nga xam ne nag mooy defar nit ki ba noppi ba mu nekk nit ku baax mu ne ko nag wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma azabak inna dalika min asmi al umur boo góorgóorloo ba gëm yàlla wéetal ko di jëf li mu la digal ci lu baax na nga ko jàllale digal ko jottali ko ñi ci des wa amur bil maaruf del digle lu baax wanne anil munkar del tere ab safaan te ngay muñ nag ci lépp lu la jot ci woote boobu muy dëppoo kon watawaasaw bi sabri ja wasbir ala ma azabak inna zalika min asmil umur kon lislaam dafay waral ci ab jullit bu mu mën a doon mu dimbalante ak mbokki jullitam ngir mbooloo mi mën a baax ndax mbaax googu nga góorgóorlu ba am ko su fekkee jàllul ci mbooloo mi la wër mbaax googu nga dund ko dana la jafe nga saxal ko dana la jafe ndax kenn nga ci biir nit ñi mënoo ñàkk jëflante ak ñoom te su fekkee melokaanu mbaax gi moom ci yow rek la nekk ñoom nekkul ci ñoom te ñoom ñoo la gën a bari bu wëtul seen influence mooy ëpp ci yow yow li nga leen di influence li ñuy def ci yow mooy ëpp li ngay def ci ñoom boobaa mën nañoo dem ba jële la ci sa mbaax gi nga nekkoon moo tax borom bi ne wa taawanu alal birri wa taqwa dee leen dimbalante mbooloo mépp ay ànd di ko def di dimbalante ci lépp luy andi ak mbaax lépp luy andi ak ragal yàlla wala taawanu alal ismi wal udwaan bu leen dimbalante nag ci loo xam ne bàkkaar lay jur ak noonoo lay jur ak ñàkk déggoo lay jur suñu borom tabaraka wa taala bi mu diglee ne nañu def lu baax nañu yéwénal mbooloo mi te mooy woo leen tegtal leen njubug suñu borom tabaraka wa taala gi nga xam ne moom la andi wax ne su ngeen ko toppee du ngeen am dara lu leen di naqari wala lu leen lu ngeen di ragal fa imma yatiyannakum minni hudan fa man tabia hudaaya falaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun njub googu nag moom la ñuy góorgóorlu jéem caa jaar waaye jéem a woo mbooloo mi itam ñëpp jaar ci suñ boroom ne wala tufsidu fil ardi baada islaahiha bu leen yàq ci kaw suuf gannaaw bu ñu ko yewénalee ba noppi muy suñu boroom bi mu fi wàccee nit ñi wàcce fi doomu aadama yabal na ay yonent jox leen ak njub goo xam ne moom la ñuy jottali nit ñi ngir ñu mën caa jaar mën a jub kon ak njub moom mooy cosaan lu baax loolu nag bu ko fi kenn di jële bu kenn yàqaat gannaaw boo xamee ne ak mbaax taxawal nañ ko ba noppi mu wax ne am na ci nit ñi nag wa min annaasi man yujibuka xawluhu fi lxayaati dunya wa yushhidu allaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu lqisaam wa ida tawalla saa fi l ardi li yufsida fiha wa yuhlika alxarsa wannasl wallahu la yuhibu alfasad boo gisee nag jamono bu nekk ñuy wax di jéem a yéwénal nee na dafa am ci nit ñi ñoo xam ne moom bu ñu waxee da ngay yéem wax ja lool na muy nuroo wax ju rafet ak wax ju dëggu mu di ko sax seedeel yàlla te nee na fekk na moom moo gën a nekk ab noon moo gën a nekk ku juuyoo ak ñi nga xam ne ñoo bëgg a topp ak njub nee na bu wanee gannaaw foofee mu doon waxee daal di tàmbalee dox ci kaw suuf di yàq sa aafil ardi li yufsida fiha yàqan googee dana law ba yàq sax li nit ñiy jariñoo ci àdduna bi muy mbay meeg jur geeg lépp yàq googu day dem ba ëmbaale ko mu ne suñu borom day bëggul ak yàq jël nañ ci jaabir radiallahu anhu mu ne la ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shahidayhi wa qaala hum sawa rawahu muslim maanaam yàq gi nit ki da cee wët participer ci genn anam bu mu dimbalantee ki koy def ci genn wet moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam rëbb kii lekk riba ak ka koy yombalal ngir mu lekk ko muy ka koy nangoo jëlal borom boobu muy leble ngir di ko teg loo xam ne riba la cay wut ak ka ko koy bindal ak ña koy seede ñoom ñëpp ku ca laal rek mu ne hum sawa ñoom ñëpp ñoo yem islaax nag buñ ko waxee muy defar muy yëwénal ak safaan ba muy yàq nattukaay bi ñu koy nattee mooy nattukaayu sharia duñ ko natte rek xelu nit ñi ak seeni bëgg-bëgg ak seeni tolluwaay ndax suñu boroom a ngi wax ñoo xam ne soo leen nee bu leen yàq ñu ne ñoom dañuy defar wa ida qiila lahum laa tufsidoo fi l ard qaalu innama nahnu muslixuun te ala innahum humul mufsiduun walakin laa yashuruun nee na soo leen teree ak yàq ñu ne ñoom yàquñu li ñuy def du yàq li ñuy def ak defar la te suñu borom nee na ñooñee ñooy yàqkat ya dëgg dëgg dëgg dëgg waaye nag yëguñu ne ñoom dañuy yàq loolu tax kon bu ñu bëggee yéwénal société bi faw ñu xam al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar tënk yi mu am digle lu baax ak tere safaan ba ci nattukaayu sharia almaaruf muy lu baax wala muy njekk muy yiw tur la woo xam ne dafa ëmb lépp loo xam ne sharia digle na ko rafetlu ko munkar muy safaan ba muy lu baaxut muy ak yàq moom it tur la woo xam ne dafa ëmb lépp loo xam ne sharia tere na ko ñaawlu na ko islaax boobu nag muy jëf loo xam ne dana tax mbooloo mi nekk mbooloo mu baax ndigalu suñu borom la waaye xeetale na yoon yi ñuy jaar ngir mën koo def ay façon la kenn ku nekk kattan gam ca am ak man-manam suñu borom ne wal takun minkum ummatun yad'uuna ila al xayr wa ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar faw na am ci yéen wala sax na ngeen nekk yéen jullit ñépp mbooloo moo xam ne dañuy woote jëme ci lu baax waaye di ko digle waaye nag di tere lépp loo xam ne safaanu mbaax la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man raa minkum munkaran fal yuqayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dalika adaaful iman rawaahu muslim mu ne ko gis ab safaan muy safaanu mbaax nee na na ko jéem a soppi ca kenn fa mu toll ci man-man bu dee ku am baat la na ko soppi ak loxoom mooy na ko dindi bu fekkee koo xam ne nag amul kàttan googu waaye bu waxee ñu dégg te mën naa am ku am kàttan nga déggaale ko jëfandikoo kàttanam na ko wax ciw làmmiñam waxin bu leer ne lii day du lu baax te itam dañ ko fee war a jële su fekkee ñaar yooyu mënu ci benn nag amul pouvoir bu mën a daal ne lii na deñ amul xam-xam bu mu ko mën a waxee wala bu ko amee itam nekkul ci position bu mu ko mën a waxee boobaa nee na na ko dindi ci xolam mooy na ko naqari ci xolam te mooy bu boobaa moom du ca ànd du ko dëgëral du ca encouragé kenn dana ca téye boppam dana ko ñaawlu mu ne loolu nag mooy li nga xam ne moo gën a doye di ci ngëm taxaw goo xam ne war nañ koo taxaw ngir jéem mbooloo mi société bi baax loolu daruura la nécessité la mënut a ñàkk ndax doomu aadama day jeexitalu ci environnement bi muy dund milieu bi muy dund la fa nekk ci ak mbaax ak safaanu mbaax moom bu fa nekkee du ca mën a mucc du ca mën a mucc kon nag fexe ba mbaax ga yaatu ba milieu ba nekk milieu bu baax ñëpp bokk lu ñuy dund mooy tax moom mu mën a wéy ca la muy dund waaye ku jàpp ne rek yow soo baaxee rek ñi ci des moom nu ñu mel sa yoon nekku ci te nga bokk nekk ak ñoom di jëflanteeg ñoom di jaxasoo ak ñoom te ñu ëpp la gën laa bari mën naa amit lu bari ca la ngay soxla ci ñoom nga koy wute ji ñi ngi jeexital ci yow ndànk-ndànk te doo ko yëg suñu borom mi ngi xam le leen millier dafay jeexital mu ne al aarabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an laa yaalamu xuduuda ma anzala allah ala rasuli ñooñu mu ne ñoo gën a tar kéefar ñoo gën a tar ak nafiq lu ñu ci doon rek day tar lool te itam ñoo gën a nekk ñoo xam ne ñuy ñàkk a xam daytali suñu borom yi lañ muy li suñu borom ne yem leen fii ñooñu bokk na ci ñu koy gën a réere te la mu leen melale rek mooy milieu yi ñuy dund muy nekk foo xam ne dañ faa bew jaxasoo wuñoo ay boroomi xam-xam jaxasoo wuñoo ay mbooloo moo xam ne danañ mën a jeexitalu seen jikko yu baax nga xam ne ñoom nañu mel rek donnante ko ci seeni maam ak seeni baay noona rek lañu mel amul leneen lu ñuy jële feneen muy ñi daan dëkk ci kaw gi rek beru foofa ci àll bi ñooñu dañuy dëgër këng ca la ñu nekk kenn du leen ci mën a jële ndax soo waxee ñu ne ñoom dañ koo doon loola rek mooy seen régal inna wajadna abaana ala umma wa inna ala azarihim muqtadun loolu lañ lay wax ñun daal dafa am lu ñu fekkoon suñ bàyyeeg suñ maam yi fa ñu jaaroon nag ñu fa la ñuy jaar moom la borom bi ne innahum alfaw abaahum dallin fa hum ala atharihim yuhraun fekk nañ seen bàyyi ya ak seen maam yi réer ñu daal di xelu rek jaar fa ñooña jaaroon di ñu dox ndànk sax waaw aw xel lañ ca jaar yuhraun yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne alfaxru walxuyala fi lfaddanin ahli lwabar wasakinatu fi ahli lganam ba tey rek muy xamle ba tey ne milieu bi nit kiy dund ak la muy fréquenté mu ne damu daal ak tiitaru ñi nga xam ne ñoo daan nekk sàmmkati ay gëléem nga xam ne ñoom yar ay gëléem moo doonoon seenub liggéey nee na ñooñu ci la loolu daan gën a fese waaye nee na ak dal nag mi ngi daan gën a ràññi koo ci ñi nga xam ne ñoom ay gàtt la ñuy yor maanaam ñeex mën naa am xëy na jëmm ya gëléemu benn ñu amee jëmm loola moo leen di influencé waale rëy gënde ca gëléem ya ak temp ga ñuy temp doola day mel na da leen di influencé ba ñoom itam dañuy xaw a mel noonu ci seenu doxalin dañuy puukarewu dañuy tiitaru waaye ñi nga xam ne ak jur lañ yor ay xar ak ay bëy yooyu nga xam ne moom ay gàtt sax la leen wolof di tudde dañoo gàtt ñooñu itam moo tax ñi leen di yor ñoom it nekk nit ñoo xam ne ñuy wayef la ñuy doon ñuy toroxlu la ñuy doon ndéeg nag ak jur sax boo ko dee fréquenté bu wëtul ay jikkoom am loo ci jël rawatina kon nag sa moroomam doomu aadama al bii amuy milieu ak environnement bi nit ki nekk dafay jeexital ci diine yi nit ki moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne maa min mawludin illa yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi muttafaqun alayh nee na ku juddu ku nekk rek waajal nañ ko waajtaayu mu mën a baax ku judd rek waajal waajal nañ ko waajtaayu mu mën a baax waaye nag la koy jële ca mbaax googa ma ngay dellu ca biir mbooloo ma muy dund te mbooloo mi ñi la ci gën a jege mooy ay wayjur moo tax mu ne fa abawaahu waaye du yem ca wayjur ya rek nag waaye ci ñoom lay tàmbalee nee na ñoo koy def leneen def ko bi yahud wala nasaraan wala majuus te fekk na ci tawxiid lañ ko bindoon lañ ko waajale woon bi muy ñëw fii fa aqim wajhaka li diine xanifan fitratallahi allati fatara annaasa alayha doomu adama yépp suñ borom da leen a waajal ñu war koo mën a wéetal bu fekkoon te ne leneen influencé wu leen ba jële leen ci wéetal googu ñu war a wéetal suñu borom tabaraka wa taala ñàkk a jéem a yéwénal société bi loolu moo doon sabab alkande xeet yi fi jiitu woon xeet yi fi jiitu woon yépp seen alkande mi ngi daan sababoo ci am ñu nekk ca biir mbooloo ma di jëf jëf joo xam ne jubut baaxut ñu bàyyi leen ca ba far jur alkande joo xam ne bu ñëwee ñëpp lay maasale suñu borom moo ngi koy wax lu'ina allasina kafaru min bani israila ala lisani daawuda wa isa bni maryam dalika bima asaw wa kaanu yactaduun kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluuh la bisa ma kaanu yafaluun nee na suñu borom rëbb na soril na yërmandeem ñi nga xam ne dañoo weddi bokk ci banu Israël rëbb googa jaar na ci làmmiñu Daawud ak Isa ibn Maryam mu ne la waral loola nag mooy mooy gañ doon mooy yàlla ak jàdd gañu jàddoon njubug suñu borom tabaraka wa taala ak itam daawuñu terente bu amee ñuy def aw ñaawteef ci seen biir ñu bàyyi ko ca duñu ko tere laa yatanahawna an munkarin faalu mu ne ñooñu day li ñu doon def lu ñaaw la tërëliinu suñu borom tabaraka wa taala ci mépp mbooloo moo xam ne ñaawteef dafa law fis fa lool ñu bàyyi ko ca kenn jéemu koo xeex kenn jéemu koo dindi ànd ak ne am nañ kàttan ga ñett yii ñu wax mën nañ ci benn am nañ kàttanu man ko faa jële wala ñu di ko wax wala ñu naqarlu ko ci seen xol te mooy ñu dagg ña koy def dutuñu am ak ñoom ay relation te loolu itam jumtukaay la boo xam ne mën naa faj lu bari naqarlu googu ci xol bu fekkee lu dëggu la du lu ñuy wax rek mën naa régler lu baree baree bari mu ne bu fekkee yooyu defuñ ca dara nag suñu boroom day matale mbugal ma ci seen kaw moom la ne wa ka ayin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa xaasabnaaha xisaaban shadida wa azabnaaha azaban nukra fa zaaqat wa baala amriha wa kaana aqibatu amriha usra mu ne wariwaan ab dëkk dëkk ba bu ñu ko waxee ñëpp a nga ca biir dëkkub lëm boo xam ne dañoo mooy ndigali seen boroom mana ñë fa ëpp loola ndot ca dëkk ba nëguwu ñoo toppit yonent ba mu yónni suñu boroom regle leen regle bu tar mbugal leen itam mbugal moo xam ne mu metti la moo tax boroom bi digle ne wattaqu fitna laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waalamu anna allaha sadidul iqaab na ngeen di wattu fitna te mooy ay nit di def ci seen biir loo xam ne lu juuyoog ndigali suñu boroom la tabaraka wa taala loola boobaa yéen a ngi dund fitna waaye bu leen ne rek ña ko def ci ñoom lay yem wala fii dañ koy wax ne ay du yem ci bopp boroom laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa kon nag bu leen bàyyi ñooña ñuy amal fitna jooja na ngeen ko xeex seen kem kàttan ba fànq ko wala su ngeen demee ba mënu leen ko fànq su ngeen mënee jógee ca barab ba muy amee ngeen jéem faa jóge jël nañ ci Saynab bint Jaas radiyallahu anha mu ne xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yowman fasian muxmarran wajhu yaqulu laa ilaha illa allah waylun lil arab min charrin qad iqtarab فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبث سيدنا رضي الله عنها نينا بن بس سخنا يونت بلا صلى الله عليه وسلم نينا يونت بي صلى الله عليه وسلم دا فا ген ملن كو تيت خار كانام بي خونق لول mu ne laa ilaha illa allah taskara day ñeel na arab yi ci mbugal boo xam ne jege na mu ne miirub ya jooja ba ak wama jooja ba ubbi nañ ca lu tuuti def ni ay baaraam mu ne lu toll nii ubbi nañ ko ca nee na ma ne ko yaa rasulallah ndax nun dañuy alku te fekk na ñu baax ñi ngi ci sunu biir mu ne waaw waaw su fekkente ne ak mbon ak um dëngte tasaaroona ba not nga xam ne léegi moom mooy li nga xam ne mooy mandargaal mbooloo mi xam nañ la dëkk sàngam nangam la ñu mel nangam la ñuy def donte benn benn yu baax a ngi ci biir loola du mën a fanq mbugal ma bu boobaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam misaal ko ci misaal boo xam ne bu leer la mu ne masalul qaa'imi ala xududillahi wal waaqii fiiha ka masali qawmin ijtahamu ala safina fa asaaba baaduhum alaaha wa baaduhum asfalaha fa kaana allasina fi asfaliha isa staqaw min almaai marru ala man fawqahum fa qaalu law anna qaraqna fi nasibina qarqan wa lam nuzi man fawqana fa in yatrukuuhum wa ma araadu halakoo jamian wa in aqasoo ala aydihim najaw wa najaw jamian rawahu albuxaari yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne misaalum ñi nga xam ne dañoo yem fi leen yàlla yemloo lam leen digal ñu koy def lam leen tere ñu ba ko maanaam ñi ngi ci kaw yoon wi ak nag ña nga xam ne yemuñu ca ña ngay weesu fa leen yàlla yamloo di tàbbi ci lu mu leen tere nee na ñooñu dafa mel ne ay nit ñoo xam ne dañoo séddoo ak gaal benn bato bu ñu dugg ñii féete kaw ñii féete suuf ci gaal bi mu ne ñi nga xam ne ñoo féete suuf bu ñu soxlaa am ndox dañuy génn romb ñi leen féete kaw mën a tànq ci ndox mi wàccaat ñoom ci suuf fi ñu nekk ne ba yàgg ñu ne daal ñun li ñu def metti na sunu wàll lii nu féeteel ci gaal gi bu ñu ci bënnoon di man di tànq foofu ndox kon duutuñu lor ñi nga xam ne ñoo nu féete kaw ñu dee leen romb ak sun ndox mi dem ak a ñëw mu ne su fekkente ne ñoo ñu féete kaw bàyyi nañ leen ñu def loolu ñu wax ñu bënn gaal ga ñoom ñépp danañu àll bu ñu ne rek ñoom kat loolu seen wàll la ñoo féete foofu gaal gi ci suuf ñoo ñoo ko moom dañ leen bàyyi ñu bënn ko waaye ñu xam ne gaal gi genn gaal ge nee la bu ñu tëyee ci seeni loxo nag ne la bu ngeen ko fi defee nee la ñoom ñëpp ñu mucc noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxee misaal ci société bi bu amee ñoo xam ne ña ngay góorgóorlu ci lu baax am ca wet ga ñuy def leneen ñu naan leen bàyyi leen leen rek seen yoon nekku ci lu waay rend ci say loxo lay nàcc waxi wolof yooyu waaye bu nàccee ci loxo mi tam boo dendeek moom bu la ko fompee bu nit ñi dañ defe na sax yaa ko ren kon nag da ngay fexe ba bu kenn rendi rek lu mu warta rendi loolu alquran jox na ci misaal ci asxaabu sabt muy yahuud yi nga xam ne dañ leen a tere woon ñuy napp jën bisub gaaw te bis boobu ñu leen tere nag ci la jën yi bari lool bay tuuru ci tefes gi bis ya ca des nga xam ne moom mën nañoo napp jën yi day jafe lool ñu mujj nag ñàkk tënku ci ndigal loolu dem gas ay pax ca wetu tefes ga nga xam ne bu jën yi ñëwee ba bari lool daanu ci seen biir pax yooyu bu subaa nag ñu ñëw jël ko ne noonu nëppuñu ko ci gaaw bi waaye ci dimanche ji lañ ko napp te fekk na ñoo gas pax ya nga xam ne ca la ca la jën ya daanu xam kon ñooñu ñu ngi doon def ak njubati am na ca seen biir nag ñetti kuréel ñu mooy yàlla muy ñoo ñuy def lu mel noonu ak ay wootekat yoo xam ne ñu nga leen di woo di leen bàyyi loolu li ñu nekk ak ñu noppi na nu suñ yoon nekku ci moom la borom bi wax ne wa isqaalat ummatun minhum lima ta'isuuna qawman allahu muhlikuhum ñooñu mooy ñu noppi bi ñu gisee ñiy waaraate di waaraate ñu ne waaw yéen lu tax ngeen di jéem a waat nit ñoo xam ne yàlla da leen a nar a alak ñii kay yàlla tere na leen lii ñoom ñu di ko def bàyyi leen ni rek yàlla alak leen aw muazibuhum azaban shadidan dana leen alak wala dana leen mbugal mbugal mu metti qaalu maaziratan ila rabbikum wootekat yooyu ñoo ñuy jéem a baaxal ne leen lii dañu koy def ngir dogal ngant sunu digganteeg sunu borom mën a def li la war rek dana baax ak du baax moom yow defal li nga war a def rek ñun daal gannaaw suñu borom moo ne fu ngeen gis ak yàq fu ngeen gis ak njubadi na ngeen ko jéem a jubanti ñun loolu la ñuy def te itam sax nag wala allahum yattaqun ki ngay waar itam nag ku ne la du waaru nit ki lu mu dëng dëng dëng bul ne kii buñ ci kenn sonnati mënatu la baax déedéet yàlla mooy baaxal moo tax ñu ne ñaar yooyu ñun lañ ciy wut benn benn suñu bopp la ñuy sowe mooy def li ñu war ñaareel bay ñu jéem leen a sowe ñoom ndax du ci ñàkk ñoo xam ne bu ñu déggee lu ñuy wax ñoom ñu waaru bàyyi li ñu doon def moo tax ñu ne maziratan ila rabbikum wala allahum yattaqun waaye ba mbugal ma ñëwee falamma nasuu ma sukkiru bihi anjayna allazina yanhawna ani suu wa axadna allazina zalamu bi azabin baisin bima kaanu yafsuqun ba suñu borom wàccee mbugal ma ñooñu doon waare ak a tere ñooñu doon a mucc kon ña ca noppi woon àndaale nañ ca mbugal ma ña doon def ak ña deful waaye noppi ci naan sax bu leen leen kenn waar ndax ñii moom jërëtuñoo waar ñooñu ñëpp tàbbi nañ ca biir mbugal suñu borom ñi mu wax ne ñoo mucc rek mooy allasiina yanhawna ani suu ña doon teralu ñaaw ñooñu rek a mucc an jayn allasiina yanhawna ani suu kon ña ne woon jër tawaare ñoom terewuñu as suu doonte defuñu ko waaye mbugal ma da leen yóbbaale su ko defee nag bu ñu dekkee nag kenn ku ne ñu dekkale ci say jëf mais léeg-léeg mbugal moom bu ñëwee day matale rek bu ñu dekkee ëllëg nag du ñu bokk fu ñu jëm ñi nga xam ne ci lu baax la ñu nekkoon waaye xëy na sàggane woon nañu ab woote wala daal barab bi ñu nekk not lu baax moo leen fa lu baaxul moo fa not te mënuñ fa woon a jógee bu suñu borom wàccee mbugal ma moom ñoom ñëpp lay dajaale suñu dekkee nag kenn ku ne suñu boroom fay la say jëf ngëneel li nga xam ne nag di woote di jéem a yéwénal société bi di tegtal nit ñi aw yiw am na ko moom mooy liggéey bi gën a tedd ci liggéey ndax mooy liggéey yonent yi mooy woote ci lu baax wa man axsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin amul ku gën a rafet wax koo xam ne day woote jëme ci yàlla waaye nag yëmul ci woote wax rek waaye day jëf lu baax itam nag woote kat warta nekk rek ay wax waaye ay jëfam dafa war a jëmmal li muy wax fu mu toll itam ak njulitam di fés wa qaala innani min almuslimin borom bi dana wax ne qul haasihi sabili ad'u ila allahi ala basira ana wa man ittabaani wa subhana allahi wa ma ana min almushrikin mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal ne diine jii di lislaam mooy sama yoon ci laa nekk di ci woote jëme ci sama borom tabaraka wa taala waaye nag woote bu tegu ci xam-xam waaye nag maag ku ma topp kon képp ko topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jullit rek am nga aw sas ci woote boobu ak yéwénal gu ñu war a yéwénal baaxal gu ñu war a baaxal société bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne la an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min an yakuna laka umrun naam muttafaqun alayhi mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu mi ngi ko doon wax Ali ibn Abi Talib yàlla jubal ndax yàlla rek nag moo mën a jubal waaye mu jaarale ko ci yow benn waay waa joo xam ne yàllaa ko jubal waaye mi ngi ko jaarale ci yow donte kenn la nee na moo gën nga am alal ji ñu gën a yéem ci alal yi jamono booba xeeti gëléem yooyu moo doonoon alal ji nga xam ne ku ko am rek yaay borom alal kon jamono ju nekk alal dañ fa gën a yéem nga xam ne ku ko am ñu boole la ci borom alal yi alal jooja nga sabablu di woote di jàngale di jaxasoo di yor jikko yu rafet ba nit roy ca ba jubbantiku la nga cay amee moo gën alal jooju ci woote googu ak jéem a yéwénal googu ci la mbooloo mi di mucce ci alkane kuréel bu néew bu ne ci seen biir di woote kuréel boobu ñoo dox diggante nit ñeeg alkande wàcc ci seen kaw moom la borom bi ne falawlaa kaana min alquruuni min qablikum ulu baqiya yanhawna anil fasaadi fi l ard illa qalilan mimman anjaynaa minhum wattaba alladina zalamu ma utrifu fihi wa kaanu mujrimin wa ma kaana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmin wa ahluha muslihun nee na bu fekkonte ne desul ay desit ci mbooloo yi fi jiitoon ay benn benn yu fi des yoo xam ne ñi ngi tere ak yàq ci kaw suuf doonte ñu néew lañ nee na day budul woon ak ñooñu day kon nit ñëpp danañ topp yoonu ñi nga xam ne suñu boroom da leen a jey ci àdduna may leen alal may leen nguur may leen ay moyens wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi wa kaanu mujrimin ñu nekk nit ñu kàccoor waaye benn benn yii woote doonte néew nañu ñootee nit ñi topp ñooñu borom bi nag ne yàlla du alal nag ab dëkk ci tooñ gu ñu tooñ bu fekkee waa dëkk ba ñu ngay jéem a baaxal ñi ngay jéem a tasaare ak mbaax wa ma kaana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmin wa ahluha muslihun kon islaax boobu muy baaxal googu woote googu mooy tax ñu mën a mucc ci alkade li ñu jiitaloon ci li Luqmaan doon jàngal doomam ci gannaaw bu mu ko yaree ci tawxiid waaye nag mu yar ko ci mu jël responsabilité am ci société bi ne ko wa amur bil maaruf wa nahy anil munkar loolu bu fekkoonte ne kër yi njaboot dafay génne nekk waladun saalix doom yu baax yoo xam ne loolu la ñu génnaale kon société bi ak yàqu du ci am bu fekkoonte ne itam ku dem ba samp kër tàmbalee sabab lu njaboot yàlla di la may njaboot sa projet bi gën a rëy mooy sa njaboot baax ni ko borom bi waxee ci nit ku baax nim na ramel hatta isa balaxa asuddahu balaxa arbaina sana yeneen jullit bi nit ki su demee nag ba am kàttanam dëgg asuddahu egg na fi mu war a mën a egg ci xam-xam ba dëgër na kàttanu yaram ga dëgër na xel ma dëgër na man-man ba dëgër na foofu nag lay jëlee aw sasam nag ci àdduna nag qaal rabbi awsi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya loolu mu jot a am nag ci kattan bu dëgër googu xam-xam beeg man-man beeg parce que ñeent fukki at moom ku ko am daanaka fi mooy tu- mooy tu- mooy fi nit ki tourné nag li ci des yëpp préparation la mais feefu moom mooy plafond bi nag li ci des nag nga war a servir nag war a joxe li nga am nag li ko jiitu moom da nga doon wut da nga doon wut di dajale mais soo xasee am nag foofu moom léegi da ngaa war a commencé joxe ci li nga am nag foofu nag mu tàmm di sant nag bañ a damoo li mu am ne rabbi awsi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma ma mën a sant xéewal gii nga ma xéewal bu dee jàng fii ma yegg ci wu jàng du ma ko damoo du sama xel mu rëy waaye yaa ma ko yaa ma ko baaxe bu dee alal la yaa ma ko baaxe bu dee kattanu yaram la ak wér la yaa ma ko may waaye ma santaale samay wayjur nag ndax borom bi moo ne woon aniskur lii wali walidayka sant ma sant say wayjur ndax li ma lay defal itam nag waajtaay woowu ñu la waajal maa ko def waaye say wayjur laa ko sase woon ñoom laa sase woon ñu def ko ndax ñoo la doon dugal ngay jàng ñu doon topp doon jàng ma ñoo la doon yar kon boo santee yàlla sant ma ndax wayjur yi mën nañ koo def wayjur yu bari def nañ la sa wayjur def te seeni doom melul ñu ni nga mel kon coobare suñu borom la waaye nag sabab lu wayjur yi itam nag ca la bokk moo tax mu ne awsi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya daal di nag jël programme nag foofu nag lay jële programme boppam nag ne wa an amala saalihan tarda yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma nag li des ci sama dund lépp nag may jëf lu baax loo xam ne loo gërëm lay doon waaye itam nag wa aslih lii fii surriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin kon ñaari projet la am na jëf lu baax luy jëriñ mbooloo mépp waaye itam sasoo na yàlla baaxalal ko njabootam comme moom ni ñu ko yare ba mu yegg foofu ba baax mu sasoo itam nag jéem a baaxal njabootam sasoo bu ko ñëpp doon dal kenn ku nekk ne wa aslih lii fii surriyati kon islaax bi du jafe ndax bu ñu dajee ci mbedd mi mbedd mi bu boobaa ñu baax rek a fa daje bu boobaa ndax kër yi ñu génne fa dañu baaxee inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin borom bi ne ulaika allasina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajaawasu an sayiatim fi ashaabil janna waada sidiqi allasi kaanu yuadun nee na ki jaar foofu kooku mooy ki nga xam ne mooy bokk ci ashaabul janna amma war goo xam ne war na ko nag ñu war a fexe ba société bu baax al mujtama saalih ñu am ko loolu dafa war ab julit ndax mooy tax mu mën a bay sas wiñ ko andee fii ci kaw suuf te mooy jaamu suñu borom tabaraka wa taala wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun loolu nag du mën a am lu dul ci di digle lu baax di tere ab safaan moo tax borom bi ne allazina in makkannaahum fi l ard aqaamu salaa wa aatawu zaka wa amaru bil maaruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur nee na ñi nga xam ne su ma leen mayee kattan may leen doole ci kaw suuf moo xam alal la moo xam daraja la moo xam xam-xam la moo xam lu ñu am rek waaye daal am na man-man bu leen yàlla may waaye man-man booba daf leen a war a soññ nag ci ñu jaamu yàlla mooy ñu taxawal julli yépp moyen yoo xam ne am nga ko muy dox sa digganteeg julli rek xamal ne loola istidraaj la loola fitna la ci yow di joxe itam asaka ca alal ja alal soo demee ba joxeetoo ca asaka itam wala xamatoo saa nu mu toll loola itam bu boobaa fitna la moom la borom bi naan fala tu'jibka amwaaluhum wala awlaaduhum innama yuridu llahu li yu'azzibahum biha fi lxayaati dunia wa tashaqa anfusuhum wa hum kafirun nee na ñi bari mbooloo lool bari alal lool te jaaruñu ci ak njub bu mu lay yëg bu leen naw falaa tu'jibka amwaaluhum wala awlaaduhum yàlla moo leen ci bëgg a mbugal fii ci àdduna wa tashaqa anfusuhum wa hum kafirun bis bu ñuy faatu fekk ci kéefar la ñuy faatu يا إلهي يا متغني ارحم حالي يا إلهي يا متكبر ارحم ضعفي